Mangini suis venu di doog a matul euh, semaines Je euh, suis également ci euh, dans la mesure où fi ma jaar yëpp lu région de Fatik, région de Saint-Louis Saint-Louis venu lu J'ai amul avant may def région yooyu def 10 ans def Bakel def hmm, Louga

parce que waxtaan amul bu waxtaan amul nag réeroo mën naa am parce que waxtaan mënoo ko waxtaan lu dul sa inter seen interlocuteur ñoom seen responsable commerçant yi seen interlocuteur ici au niveau de de la région par rapport à ce domaine là man la te man gisuma benn commerçant jàkkaarloowul ak man wax ak man kon mun naa ne waxuñu ak kenn waaw alors que comme il y a un responsable normalement c'est un responsable baron na rencontrer responsable service bi ñu tok jéem arrondir les angles xol lan mo doxut ak lan mo waral lii ñu jéem a ñu ci waxtane au lieu que ñuy ñuy ñuy wu dans les médias di ku nek di joxe ay déclarations je pense que c'est ça. mbir mi li ko sabab d'après ñom li ñu wax ne moom moko sabab li sabab mbir mi waaye na man gëwuma ne li moko sabab. parce que man bima ma amna écho comme quoi commerçants yi ñu ngi organiser wu pour mëna génn def def déclaration wala marche wala yoyu man bima ma rek bima ma kaolak rek tek sama bagage rek fekk na loolu ñu am wax nañ ma ko ay renseignement nee nañ ma commerçants yi actuellement ñi ngi préparer wu pour faire face au au service d'hygiène loolu kon li bu amé du lo xam ni du mo bett la peut-être que li c'est c'est un alibi bo xam ni mom mo déclencher rek seen li li xew moy demb euh, dañoo dem agent yi dañoo dem ci terrain bi bi ñu ñu interpellé un commerçant boo certificat médical am dafa depuis le 3 février mu 3 février 302 mu dindi 302 ba changé ko 303 Il a le 3 mars waaw maanaam falsification boobu interpellé certificat bi suis falsifié nga interpellé convocation pour fi koy koy la convocation pour jox ko ko euh, maanaam euh, koku nga xam moy commerçant bi di len filmer ak téléphone xalé yi nak ay xalé lañ c'est des jeunes maîtriser wuñ encore les toutes les rouages de l'administration toutes les rouages de de de, de leur activité hein bu fekkee né yow mbir mi yaa ngi liggéey ci liggéey bo xamni ni dafa muccu ayib tek ko ci yoon buñ ma filmer sama yoon newu ci ku sama yonne ca wu ma wala c'est pas mon problème bien que nak filmer nit ki wala photo ko à son lolou mom yon diglé wu ko wu ko voilà ñom ñu mu di filmer ñu convoqué ko jël téléphone bi biñ jëlé téléphone bi ñu vérifier téléphone bi gis né commerçant yi dafa am groupe whatsapp bo xamné lu mat groupe whatsapp la li nga film bobu caméra nous mu caméra waaw ñu wone waa euh, agent bi mu sëgg di bind convocation bi mu partager ko ak ak ak commerçant yëpp loolu moom mooy ça veut dire que c'était prémédité loo xam ne ni dañ ko préparé la loo xam ne ni xëj na ñu ngi doon bu doon muy doon doom gën a garaaw sax bu fekkoon ne da commerçant bi dañ dañuy filmer gon euh, agent bi muy récupérer xaalis waaye nag dañ ko filmer muy bind convocation voilà bu ñu sañoon nag ñoom ci seen bopp dañ koy filmer muy jël xaalis bu ñu koy jox wala muy muy def naka su noonu yàlla dogal na demewul noonu ñu ngi ko filme muy def liggéeyam donc c'est ça te film boobu nag moom la xale yi jël ne ñoom dañuy porter plainte pourquoi mu leen di filmer plainte boobu nag moom lañ porter plainte bi ñu porter plainte nag ñu boole ci téléphone bi nga xam ne ni moom la commerçant bi doon filmer ci biir téléphone bi am na groupe WhatsApp ñeent fukki nit ak lu topp ah ak film bi moom lañ joxe pièce comme pièce à conviction léegi nag bi ñu demee loolu léegi bu fekkee ne kii nañ téléphone am dañ ko koy delloo je pense que man nag buñ ma yë yë waxoon duñ sax jël téléphone bi dañ koy bàyyi poursuivre ko rek. ne ko sa téléphone a ngi noonu filmer nga parce que man booy boo may filmer te li nga may filmer defuma lu dul li nga xam ne moom lañ ma sant boo ma filmer da may defal promotion waaw da may defal promotion comme quoi sama liggéey maa ngi koy def ci yoon voilà.

Euh, suñu suñu suñu suñuy salaire waaw kon du ñuy yox yoxi comme je di force restera à la loi du ñuy yox yoxi liggéey bi dina continuer ñu teg ko ci li nga xam ne ni moom mooy réglementation bi ci fi nga xam ne ni fa la ko yoon teg waaw kuñ ci interpellé ci ñoom te liñ la interpellé yaa danga koy contesté nga contesté ko ñu yóbbu ko fa ñuy atte kooku atte ko reconnaître la jox la tort wala mu jox la dëgg